sourire bu nëbb ab tiitange ca dëgg-dëgg bile étudiante day wane jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy jànkonteel ci cours en ligne yi fii si du Fuladu. plateforme bi nga xamante ne moo ñu war a permettre tey ñu jàng franchement nga ñëw jënd sa connexion nga war cee dugg te mënoo si dugg pour lan parce que plateforme bi am amul possibilité nga dugg foofu pexe yi yëpp amul loo mënta def nga jël sa téléphone réinitialiser du dem. mu doon lu jafe lool. Mamadou Diaw moom it étudiant la mu jógee ci seen dëkk ñëw fii ci Kolda ci dëkku kaw yu ci bëri ci diwaanu Kolda enseignement à distance daanaka lu mënul nekk la. parce que village bi ma jógee aw réseau foofu noonu aw ma électricité foofu noonu parce que moo tax mënumaa liggéey ci sama machine bi donc euh, pour ma mën a participer ci ay cours en ligne il faut que ma jógee village ñëw ba fii nii. Euh, mën a am connexion. am na samay xarit yi nga xamante ñoom franchement nekkuñu Kolda am na keneen ku nekk Kaolack aussi moom chaque fois bu amee possibilité c'est-à-dire dañoo organiser wu en ku ci am connexion wala ku ci am accès rek nga télécharger nga capture ko envoyé ñu ko ñun ñu mën a cee jëfandikoo. Sylvie Guirassi ak Mamadou Diawo ñoom ñaari ñëpp bokk ci faculté des sciences juridiques et politique bi ñu jógee université Cheikh job de Dakar ak léegi war na toll ci juróom-ñaari weer tey ñu jaaxle. ñuy dem foofu noonu dañu yaakaaroon ni. suñu ëllëg ci université bi la nekk ndax dañoo war a jàng am suñuy diplôme mën a tekki jàppale suñuy waajur kon dañu damaa jàpp ni nañ def lu gën a gaaw ñu ubbil ñu suñuy université may ñaan autorité yi daal ñu gën a xoolaat lu ñuy def rek ndax ñu mën a ubbi ci lu ñu gën a mën a gaawee lu ñu xam mooy nga toog sa professeur toog mu jàngal la nga koy gis nga koy dégg nga mën jàng connexion bu baaxul ak ñàkkum courant si yenn gox yi mooy li nga xam ni mooy gën a jafeel cours en ligne yi Mamadou ak Sylvie nekk ci ab tiitaange ndax bile xeetu jàngal dina yàkkal yenn ci ay étudiants ci diwaanu Fuladu